CBAO métti na métti na jeggi na dayoo métti bi nekk CBAO les gens sont traités comme des esclaves et ça nous disons non à ces pratiques là tey loolu dafa war a dàq biir Sénégal. ñu daal di rax ci syndicaliste ñu daal di ñëw euh, fësal seeni bëgg-bëgg ci bés bi nga xamante ne nag la ñu màggal liggéey yi lay liggéey kon di joxoñ baaraamu tuuma. il faut que ñu assainir CBAO ñu teg ko ci ay loxo yu wóor ndaxte. ñun Sénégal suñu dëkk la mënuñoo dem tey Maroc nekk foofu ay moodu moodu on préfère rester chez nous. bu sukkandikoo ci seen kàddu njiit yi dañoo daal di dàq ñenn ci liggéeykat yi te teguñu ko fenn. dem nañu ba licencier ay quatre agents ak trois délégués syndicaux di nga xamante ne biir Sénégal mu nekk ñaaw ñaawteef bi nga xamante ne mustaam ba Bassirou Diomaye Faye daal di àggee ci nguur gi ba léegi yile liggéeykat nag am nañ yaakaar ni lu bari dina soppeeku ci seen barab bi ñuy liggéeyee ndaxte lu bari moo fay am ci lu nëbb l'ouverture du capital le relèvement du taux de la prime puisque les agents font un travail extraordinaire la prime de résultat le relèvement de ce taux là la généralisation des bonus et troisième chose c'est l'augmentation conséquente des salaires nous exigeons de voir notre part mise sur la table donc yeneen cinquième yi ñëw tey mooy la réintégration non seulement des délégués parce que le délégué moom pour licencier ko ñoom xam nañu et ils vont s'en frotter aux autorités de ce pays là